muy jàmm. muy jàmm. ñor na leen. ñor na leen. lépp luñ mën. lépp lu ñu mën. pour ànd ak seen peuple bi. te ànd ak seen peuple bi. ànd ak seen peuple bi. ànd ak seen peuple bi. ngir xuus. ngir xuus. xuus bu wér. xuus bu wër xuus bu dëggu. xuus bu dëggu. ci problème yi nga xam ne. ci problème bii nga xam ne. ñu ngi koy ñu ngi ciy jaar. ñu ngi ciy jaar. luñ ci mën def nañ ko. luñ ci mën. def nañ ko ca. ñu ngi ñaanal suñuy doktoor ñu ngi ñaanal suñuy docteur. suñuy médecin. suñuy infirmier. suñuy infirmier. yu góor yeeg yu jigéen yi. yu góor yeeg yu jigéen ñoom itamit seen taxawaay. ñoom itamit seen taxawaay. taxawaay yi jàmbaar la. taxawaay ndax ñu ngi taxaw ci kanam déegi ñoom. ndax ñu ngi taxaw ci kanam yi ñoom. ngir musal ñeneen ñi. ngir musal ñeneen ñi. loolu itam. loolu itam. mbaax la goo xam ne. mbaax la goo xam ne. yàlla moo ko def ci seeni xol. yàlla moo ko def ci seeni xol. ndax xoli jullit la. ndax xoli jullit la. baax nañ. baax nañ liñ mën yëpp def nañ ko liñ mën yëpp def nañ ko yal na yàlla may leen ndam yal na yàlla may leen ndam yaa rabbi ci seen liggéey bi nga xam ne ci seen liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey fii ñu ngi koy liggéey fii di xeex ak di xeex ak Euh, li nga xam ne xew na fi. li nga xam ne xew na fi. feebar bii nga xam ne ñëw na. feebar bii nga xam ne ñëw na. ñi ko gën a séq. ñi ko gën a séq. gën koo jege. gën koo jege. ñoo la gën a wax ne ñun xamuñ ci dara. ñoo la gën a mën a wax ne ñun xamuñ ci dara. xamuñ fu mu jógee. xamuñ fu mu jógee. xamuñ lan la. xamuñ lan la. te tey lañ gën a ragal. te tey lañ gën a ragal. mais mi ngi ñëwaat ñëwin boo xam ne. ne mu ngi ñëwaat. ñëwin boo xam ne. ñëwin boo xam ne. yaakaar nañ ne duñu am kattan buñ ko mën a teeroo yaakaar nañ ne duñu am kattan buñ ko mën a teeroo waaye kattani yàlla mu ngi fi waaye kattani yàlla mu ngi fi mën nañoo fegal yépp mën nañoo fegal lépp yal nañu ko yàlla fegal yal nañu ko yàlla fegal yaa rabbi liggéey liggéey liggéey liggéey baax na lool baax na lool doomu aadama def effort doomu aadama def effort baax na lool baax na lool ndax yàllaa ko ko sant ndax yàllaa ko ko sant dana ko bul yàttaaral moo ne ko bul yàttaaral góorgóorlul góorgóorlul taxawal taxawal defal li nga xam ne defal li nga xam ne njëriñ dina ci bàyyeekoo njëriñ dana ci bàyyeekoo pour yow pour yow njëriñ dina ci bàyyeekoo njëriñ dana ci bàyyeekoo pour ñeneen pour ñeneen boo defee loolu boo defee loolu man yàlla man yàlla dinaa la dimbale danaa la dimbale dinaa la jàppale danaa la jàppale it te weeru koor wii weeru koor wii ñu génn nii ñu génn nii ku ne xam na ne ku ne xam na ne weeru koor wi lu ñuy jaamoo yàlla rek jaamoo nañ ko. weeru koor wi nu ñuy jaamoo yàlla rek jaamoo nañ ko noonu. jaamu nañ jaamu yàlla jaamu malaaka yi. jaamu nañ jaamu yàlla jaamu malaaka yi. ndax duñ lekk duñ naan. ndax duñ lekk duñ naan. jaan jaamu nañ yàlla jaamu malaaka yi. jaamu nañ yàlla jaamu malaaka yi. ndax dafa wax ne dañuy dañuy fanaana sabaal. ndax dafa wax ne dañuy fanaana sabbaal yendoo sabbaal yendoo sabbaal te duñ ci tayal te duñ ci tayal loolu def nañ ko ci weer wi ñun def nañ ko ci weer wi dafa wax ne dafa wax ne ñu ngi nekk rek ñu ngi nekk rek ci li nga xam ne moom la leen yàlla digal ci li nga xam ne moom la leen yàlla digal ne nañ ko def ne nañ ko def ñu nekk ci nekk ci xamuñ lu dul moom xamuñ lu dul moom. ñun nag yàlla digal nañu. ñun nag yàlla digal nañu. waaye binduñu ni mu malaaka yi. waaye bindeewuñu ni mu malaaka yi. ñun dañuy juumaka. ñun dañuy juumaka. def sax maa tey. def sax maa tey. ay tàng. ay tàng. waaye du tere nag. waaye moom mu ngi ñuy xoolee bëtam bi nga xam ne. moom mu ngi ñuy xoolee bëtam bi nga xam ne. moom moo ñu bind. moom moo ñu bind. ñu fi indi. moo ñu fi indi. ci ci ci ndogalam. ci ndogalam. li xew yëpp ci lay xewee. li xew yëpp ci lay xewee. su ko defee nag. su ko defee nag. ñi nga xam ne tànn na leen ca biir xew-xew yooya. ñi nga xam ne tànn nañ tànn nañ leen ca biir xew-xew yooya. ñu nangul yàlla. ñu nangul yàlla. lu métti métti ñu nangul ko. lu métti métti ñu nangul ko. dem leen sujjóot ñi dem sujjóot. dem leen sujooti dem leen ñu dem sujoot ñu dem sujoot rukkoo ñu dem rukkoo dem leen rukkoo ñu dem rukkoo jàng leen alxuraan jàng alxuraan jàng leen ñu jàng alxuraan balu yàlla ñu balu yàlla balu leen yàlla ñu balu yàlla tudd leen yàlla ñu tudd yàlla tudd leen yàlla ñu tudd yàlla <coughs> loolu yëpp loolu yëpp ñu ko yàlla sante ñu def ko bu ñu ko yàlla sante ñu def ko. yàlla teg na ci ne. yàlla teg na ci ne. moom ajurun azim. ñoom ñëpp yàlla dina leen jox yool boo pay goo xam ne. ñoom ñëpp yàlla dana leen jox pay goo xam ne. pay gu màgg la. pay gu màgg la. lu ëpp sax xalaatu doomu aadama. lu ëpp sax xalaatu doomu aadama. yàlla bindal loolu. yal nañu yàlla bindal loolu yaara te tàmbalee ko. te tàmbalee ko. dàqal ñu suñu gan gu gii. dàqal ñu suñu gan gu soof gii. gan gu soof gii. nga xam ne jaxase na ñëpp. nga xam ne jaxase na ñëpp. lu dul ñi gëm yàlla. lu dul ñi gëm yàlla. yal nañu yàlla teggil musiba gi. yal nañu yàlla teggil musiba gi yaara bi. yal na ko yàlla soril. yal na ko yàlla soril yaara bi. soril Sénégal. soril Sénégal. soril fépp foo xam ne. soril ko fépp foo xam ne. réewi jullit ñaa fa. réewi jullit ñaa nga fa. yal na ko soril itam ci àddina bi yëpp itam. yal na ko soril itam ci àddina bi yëpp itam. ñun ñëpp bokk àddina bi. ñun ñëpp bokk àddina bi. waa àddina bi yëpp. waa àddina bi yëpp. ñu ci ron. ñu ngi ci ron. li wax yàlla wax. di wax li yàlla wax. ne ar yàlla mooy rahmaan. ne yàlla mooy rahmaan. mooy rahmaanu dunya. mooy rahmaanu dunya. mooy rahimul axira. mooy rahimul axiru. rahmaanu dunya nag. rahmaanu dunya nag. <coughs> ñëpp a ci bokk yem. ñëpp a ci bokk yem. ku baax ak ku ku baax ak ku baaxut. ku baax ak ku baaxut. ku jub ak ku jubut. ku jub ak ku jubut. ku ku ku ku ku ku maandoo ku maanduwut. ku maandoo ku maanduwut. <coughs> ñoom ñëpp ñoo yem ci rahmatu boobu. ñoom ñëpp a yem ci loolu. ndax lan. ndax lan yàlla moo ñu fi indi yàlla moo ñu fi indi ba al mu mu mu àndale ñu mu àndale ñu loo xam ne dinañ fi mën a nekk yoo xam ne danañ fi mën a nekk te yërmandeem rek te yërmandeem rek la yal nañu ko yàlla gën a sotti yal nañu ko yàlla gën a sotti yaara bi ndokkeel yëpp jullit ñëpp sëriñ bi ne ñu ngi ndokkeel jullit ñëpp ndokkeel waa Mérina yëpp di ndokkeel waa Mérina yëpp ndokkeel taalibe Baay fu mën ci nekk. di ndokkeel taalibe Baay fu ñu mën di nekk. ndax weer wii ci ñoom. ndax weer wii ci ñoom. xam nañ weeru jihaad fi sabilillahi xam nañ ne weeri jihaad fi sabilillahi la. ku ci yàlla jël sax. ku ci yàlla jël sax. daf lay jëlee ne da ngaa shahid fi sabilillahi. daf lay jëlee ne da ngaa shahid fi sabilillahi. yal nañu yàlla bindal yool boobu yal nañu yàlla bindal yoon boobu yaara bi yal nañu yàlla bindal barke boobu yal nañu yàlla bindal barke boobu yaara bi yal na yàlla setal ci suñu réew mi yal nañu yàlla setal ci suñu réew mi dàq fi gan gu diis gi nga xam ne ñun ñëpp bëgguñ ko dàq fi gan gu diis gi nga xam ne ñun ñëpp bëgguñu ko te amuñ ci yenn pexe te xamuñ ci pexe it yàlla mi nga xam ne nag moo am pexe mu nekk yàlla mi nga xam ne nag moo am pexe mu nekk yal nañu taxaw yal nañu taxaw <coughs> nañ ko attanee nañ ko attanee ak nañ ko mënee. ak nañ ko mënee. ak nañ ko bëggee. ak nañ ko bëggee. yal nañu taxawoo noonu. yal nañu taxawoo noonu. waaye. waaye. pexey doomu aadama. pexey doomu aadama. pexey doomu aadama rek la. pexey doomu aadama rek la. mën naa antu mën naa bañ a antu. mën naa antu mën naa bañ a antu. waaye pex waaye yàlla moom. waaye yàlla moom. moom kun fa yakun rek la amee. moom kun fa yakun rek la am. yow yàlla. yow yàlla. ci sa kun fa yakun googu. ci sa kun fa yakun googu. ñu ngi lay ñaan. ñu ngi lay ñaan. yal na ñu teggil musiba mi. yal na nga ñu teggil musiba wi yaa rabbi. yal na ñu teggil korona bi. yal na nga ñu teggil corona bi. yal nga ñu wattal loo xam ne. yal na nga loo xam ne. du ci gisee xiif. Sénégal du ci gisee xiif. senegal du ci gisee ñàkk. Sénégal du ci gisee ñàkk. Sénégal du ci gisee feebar. Sénégal du ci gisee feebar. te loolu adduna bi yëpp di ragal la. te loolu adduna bi yëpp di ragal la. waaye yàlla nag. waaye yàlla nag. boo ko génnee ci say mbir rek. boo ko génnee ci say mbir rek. ay tiit da ngay nekkee. ay tiit rek ngay nekkee. waaye nag bu fekkee nangu nga ne yëpp ci yàlla rek la. waaye bu fekkee nag ne nangu nga ne lépp ci yàlla rek la. da ca da xam ne loraange ci nekk jëm si ci ñun. ba nga xam ne. la nga xam ne. la nga xam ne loraange ci nekk jëm si ci ñun. ñun ñoo ko defal suñu bopp. ñun ñoo ko defal suñu bopp. nag. kon nag gannaaw ñoo ko defal suñ bopp gannaaw ñoo ko defal suñ bopp wax na ne bu ngeen tuubee ma nangul leen tuub yàlla wax na ne bu ngeen tuubee ma nangul leen tuub gi bon yéen Amérique tuub leen bon yéen Amérique tuub leen yéen Chine tuub leen yéen Chine tuub leen yéen France tuub leen yéen France tuub leen yéen yéen réewi Occidentaux yëpp yéen réewi occidentaux yëpp tuub leen tuub leen bu ngeen tuubee bu ngeen tuubee dina leen nangul yàlla dina leen nangul yàlla dina leen yëkkatil yàlla dina leen yëkkatil coono yi coono yi waaye li ngeen di jéem waaye li ngeen di jéem jëmale ko ci yàlla jëmale ko ci yàlla du sotti du sotti. ndax ni ngeen réeree corona bi xamul xamu leen xamu leen lan la. ndax ni ngeen réeree corona bi xamu leen lan la. xamu leen fu mu jógee. xamu leen fu mu jógee. noonu ngeen réeree yàlla. noonu ngeen réeree yàlla. xamu leen ko. xamu leen ko. yëgu leen ko. yëgu leen ko. yëgu leen ko. dund leen ko. dund leen ko. waaye yàlla moom. waaye ana moom. waaye yàlla moom. waaye yàlla moom. xam na li xew yëpp. xam na li xew yëpp. yal na ñu taxawu. yal na ñu taxawu yaa rabbi. yàlla na yàlla nangu suñu koor li liñ euh, ci defante ci yu baax yëpp. liñ ci defante ci yu baax lépp. yal na ko yàlla nangu. yal na ko yàlla nangu yaa rabbi. yal na ko yàlla ful. yal na ko yàlla ful. te yàlla bu ñu yàlla nattoo. te yàlla bu ñu yàlla nattoo. loo xam ne attanuñu ko. loo xam ne attanuñu ko. ñi ñi ñi seq affaire boobu. ñi seq affaire boobu. ci xam-xam. ci ñëpp ñu ngi ragal. ñëpp ñu ngi ragal. tiif buy ñëw. xiif buy ñëw ñàkk buy ñëw ñàkk buy ñëw économique buy daanu économique buy daanu loolu yëpp mu ngi ci seen xalaat yi loolu yëpp mu ngi ci seen xalaat yi ñu ngi ragal ne dina am ñu ngi ragal ne dina am waaye bu amee itam waaye bu amee itam yàllaa ngi fi ak yërmandeem yàllaa ngi fi ak yërmandeem di ànd di di di di di di ci ànd di ci ànd ak jaamam yi ak ak jaamam yi ak jaamam na nekkee ñun loolu yal na nekkee ñun loolu yal na yàlla barkeel yàlla barkeel yaaram yi liggéey yëpp ci koor gi. liggéey liggéey yëpp ci koor gi. di ci sàkku ngërmande yàlla. di ci sàkku ngërmande yàlla. di ci sàkku itam. di ci sàkku itam. yow yàlla. yow yàlla. sant nga ñu. sant nga ñu. def nañ. def nañ. yal na nga nangu suñu def. yal na nga nangu suñuy jëf yaara bi. ci sa mbaax rek. ci sa mbaax rek. yaa ñu ko sant. yaa ñu ko sant. yaa ñu dimbale ba mën koo def. yaa ñu dimbale it bañ mën koo def. noonu nga ñu ko sante dimbale ñu bañ def ko. bi ñu ko santee dimbale nga ñu bañ def ko. yal na ñu ko nangul. yal na nga ñu ko nangul yaa rabbi. yal na ko nangul. yal na nga ñu ko nangul. yal na yàlla barkeel. yal na yàlla barkeel yaa rabbi. ñu ngi jublu ci ay nawet ay mbay. ñu ngi jublu ci ay nawet ay mbay. yal na yàlla may ñu barke boo xam ne. yal na yàlla may ñu barke boo xam ne. daf ñuy bett. daf ñuy bett xéewal goo xam ne daf ñuy bett xéewal goo xam ne daf ñuy bett yonent mu ne moo gën a neex ci xéewal yonent bi mu ne moo gën a neex ci xéewal yi yal nañu yàlla bettee ay xéewal yal nañu yàlla bettee ay xéewal ci zahir ak ci baatin ci zahir ak ci baatin yal nañu yàlla gën a saxal yal nañu yàlla gën a saxal ci gëm yàlla ci a saxal yal nañu a saxal ci gëm yàlla ci yàlla yal nañu yàlla gën a saxal yal nañu yàlla a saxal ci gëm yàlla yàlla yaa rabbi yal nañu yàlla may yal nañu yàlla may tànki bàyyi yooyu ak maam yooyu fi bàyyi jotaay bii tànki bàyyi yooyu ak maam yooyu fi bàyyi jotaay bii yal nañu yàlla may kattan buñ toppee tànk yooyu yal nañu yàlla may kattan buñ toppee tànk yooyu yaa rabbi buñ amul seen kattan itam buñ amul seen kattan ñu ñu ngi nii rek ñu ngi buur rek ñu ngi ñëw rek. ñu ngi nii rek ñu ngi buur rek ñu ngi ñëw rek. buñ daanoo danañ jóg ñëw. suñ daanoo danañ jóg ñëw. suñ daanoo danañ jóg ñëw. buñ amee kattan itam continuer rek. buñ amee kattan itam continuer rek. yàlla yàlla ñu nangu rek. yal nañu yàlla defal loolu yaa rabbi. te yal nañu nangul. te yal nañu nangul. ak suñu manqué manqué yeeg. ak suñu manqué manqué yeeg. ak suñu matadeeg. suñu matadeeg. yëpp yal nañu ko yal nañu ko xoolee sa mat gi. yëpp yal na nga ñu ko xoolee ci sa mat gi. yal nañu ko xoolee ci sa mën. yal na nga ñu ko xoolee ci sa mën yaa rabbi. yal nañu ko xoolee ci sa am-am. yal na nga ñu ko xoolee ci sa am-am. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf jërëjëf. voilà mu ngi noonu kon Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass lañ doon àndaat en direct ci 90 point 1 kon mu ngi noonu euh, ku nekk na jàng Fatiha ñetti yoon ñetti salaatul Fatiha gërëm leen sant leen bu baax a baax amin ya rabbi amin amin amin ya rabbi ñi teewluwaat Cheikh Mouhamadul Mahi bi mu ne ñu ngi li docteur yi santaane yépp ci masque yeeg ci masque yeeg ndox yeeg ndoxum raxasu yi raxasu saabu ak toogaay yi ak toogaay yi ci distance yi juré yi yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel sëriñ bi ne yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel te di ko jëfee ndax dañoo dañoo yaakaar ne loolu dina dimbale ci paj mi ndax dañoo yaakaar ne loolu danañu dimbale ci paj mi kon nag lépp loo xam ne daf lay dimbale lépp loo xam ne daf lay dimbale jàpp ci amul jàpp ci wàññiwul dara jàpp ci wàññiwul yal na yàlla dimbale yaaram mu ngi noonu kàddu euh, kilifa mu ngi noonu kon digle yi wax na dëgg euh, ndax euh, ñoon wi nag ñoom ñooy yëngu li nga xam nañ dem ci Abdourahmane mu ngi ci biti toog ci minbaru jumaa ji di leen di xaar waaw pour ñu mën a eewi sëriñ daara bi Cheikh Mahamadoul Amine Cheikh Ibrahima Niass mu ngi noonu toog naka noonu tim Cheikh Ibrahim mu Cheikh Ousmane Euh, mu ngi doon toog euh, naka suñu baay mi nga xam ne euh, moom lañu ñu àndatoon ci naafila gi ñaar fukki guddi waaw suñu baay ji nga xam ne moom lañu àndatoon mbir mi ay minutes yu néew moo des imaam moo war a yëkkati kàddu gannaaw boo xamee ne digaloon na Cheikh Abdourahmane comme ni ko aada woo di ko Euh, mu amal li nga xam ne moo di hadiya ji nga xam ne dinañ ko jagleel ki nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima mi nga xam ne euh, moo doon def naafila gi en direct ci la référence 90 point 1 suñu baay mbay Thiam bi nga xam ne mooy euh, doom si suñu baay naxwu mi nga xam ne bëri na ñoo xam ne moo leen jàngal fii tey grand-mère arab mu ngi noonu fan yëpp ñi nga ànd moom. ci jotaay bi. ñu ngi noon di nuyuwante maasalaam al imam al akbar imam Cheikh Tidiane amin ya rabbil amin amin mu ngi noon di ñaanalante moom 90 point 1 kon euh, moom kadoom al imam al akbar imam Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé mu ngi noon alhamdulilah waaw Cheikh Mamadou Makki Cheikh Ibrahima Niass moom moo koy ndokkeel noonu euh, ci li nga xam ne moo di euh, bu tedd bi en direct ci la référence 90 point 1 en direct ci la référence 90 point 1 Cheikh Mouhamadul Makki yaa ngi en direct ci Alfayda euh, tey def ne naafila gi ba noppi nii la loon ko Maolana Cheikh Lislam di ko defee euh, tey lan ngay wax mbokk yi lay déglu di leen maa ngi wax di ndokkeel sama bopp ndokkeel ñëpp ci njiital xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane ak mboolem ay kàngam Cheikh Mouhamadul Mahi ak imam Cheikh Tidiane Ali Cissé ñoom ñëpp taxawaay nañ taxawaay bi ba nga xam ne mel na ni dara manqué ñu ñaan yàlla digle di ñu yaakaar ci laylatul qadr yàlla na ñu ko yàlla defal kenn ku nekk yàlla na yàlla jàppale rajo bi nga xam ne tey euh, dimbale na lu bari xataa ci feebar bi sax dimbale na ñu bari ndax moo tax li ñu naan toog leen ci seen kër yi ñëpp mën a toog ci dégg na am na ñu ma ñu ma wax ci Europe sax ne ñoom dañuy jàpp alfayda di ci di ci naafila la ne ma ndax dagan na ma ne dagan na ma ndax ndax li ñun ñëpp dañu ñu nekk ñu nekk ci jumaa yi sax ñu ngi ci kon nag na ngi sant yàlla bu baax di leen ñaanal di leen ñaanal taxawaay yàlla jeexal kii bi te may leen succès may leen fa may leen formation ngërëmal yàlla ci zahiran wa batin ak Seydou Diour ma zalika allah bi amiin Niass Cheikh Mouhamadul Makkiyu Cheikh Ibrahima Niass mu ngi noonu moom suñu xarit la ci biir naafila gi woon nañu dénk ay conseils yoo xam ne Euh, bu ñu ko defee du ñu du ñu du ñu danañu mucc donc kon mu ngi noonu naafila gi jeex na euh, fii ci Medina Baye incha allahu rabbi euh, déwén la ñuy wax yàlla nañ ko fekkee jàmm te bala ñooy dem ay fen yu néew yàlla na fi yàlla jugee mbas mi la nga xam ne moom moo jaaxal ñëpp kon ni ko Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass waxee. gërëm leen sant leen bu baax a baax mbokk yi kon jërëjëf El Hadji Libaas Mbay mi nga xam ne moo nekkoon ci technique bi si studio Ali Momar Lo ñu gërëm ko sant ko bu baax jërëjëf Mouhamadou Khalili moom itam euh, ci wàllu internet bi ba ngeen mën ko seetaan jërëjëf sëriñ Gueye ci wàllu euh, li nga xam ne moo di caméra bi El Hadji Ibrahima Gueye moom itam jàppoon na ci jataay bi ndax saa yu jël naa fi la mooy ki nga xam ne mooy ñu nekkal ci technique bi si studio Ali Momar Lo leen rendez-vous suba incha allah bu 14h30 ci dernier hadis mu di hadis xalaat léegi programme rajo Alfayda ci wàllu diina ji ba bër set jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm